man mi junj coow dama wax dafa aaju ci plan spécial de désenclavement mu di lu baax mu di lu ñi xaar defari tali defari yoon nit ñi dañu ko soxla oui mais bu àndeek lu tay xel jaaduna ñu jàkkaarloog sénégalais yi léral len léral bi ci njëkk mooy né dañu lepp xaliss ci turu sénégalais yépp ñu war ko fay mu tollu ci 98 milliards 98 milliards de damay fatali rek ne président Macky Sall moy ki signé garantie bi ko ci lettre bu garantie souveraine de l'État mon Makisal le 6 janvier 2022 Xana buñ le président signé nako amna garantie souveraine ñu ne kon jaar na yoon waaw loolu lay niroon waaye li graw moy xaalis bi dañ ko lepp ci suñu tour ñun sénégalais yi xaalis bi yegg dakar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 Si yëf yi ne vous ñu jël bi ne ko yow comme ko en toute illégalité donc yamul parce que vous faites ne leneen li graw ci dañu jël bu Sénégal ñu def ko ci compte société privée ba pare jaar ci jël bi ko banque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 l'agent assignataire qui wara yoré khalisou lepp leb bii ñu leb du kenn ku trésor public du Sénégal donc il faut ñu déglu wax ji khalis bi biñ koy leb le contrat de crédit dafa wax ne khalis bi bu yegsee Sénégal le comptable assignataire moy trésor public mo wara yoré khalis bi xana kon benen jalgatee may wax ne man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 intérêt yamuy rotal ñu jël ko ubbi compte ci turu état wu Sénégal boobu tamit joxna len turu compte bi c'est toujours au nom de l'état du Sénégal way way bo ñew ci sama kër difa tabax kër boo ñëwee sama kër difa tabax nek xana di nga ma laaj mëno jël xaalisu Sénégal di lo Sénégal xaalis te ministère des finances yëgu ko motax ma wax ne compte bobu di générer intérêt c'est un proche de Mansour Faye mon mo yor signature kon yaakaar naa ne ci fan woowu leer na dinañu leen ci déglu ci question yi nga xamné amna ci benen laaj bu jur musiba moy bu agi bu Soumaré Macky Sall bu respecté won Sénégalais respecté les Sénégalais de la diaspora et principalement Sénégalais yi en France nga xamné Marine Le Pen Sénégalais yoyu la bañ a gis ak bët moom Macky Sall wu ñëpp waroon nañu recevoir Marine Le Pen ba mu des mom Macky Sall bés nak bët bu rusul toj kon li ciow li ci nek moko yobé bopam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

Le moyen nee réduire l'opposition à la à sa plus simple expression mais loolu ñu nit nañu am foule, ba xamal ko ne yaa ci sa dernier mandat te duñu la seetaan benn on nga fi jalgati constitution ou réel. mi bi ñuy mujjee rek mooy tële gu Macky Sall ne télé na parce que bu demeurez ba nangu ne mi metti na nangu ne saafara yi mu

pour ces questions.